asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi nuyu ku ci nekk surtout rek sa sant di la fekk fi nga toog di la jox loxo macha allah di wax ni rek ñëwati nañ ci beneen numéro seen émission nañ ko waxtaanee comme niñ koy defee saasu ne rek génne actualité wu sénégalais yi teg ko ci kaw taabal bi jéem koo waxtaanee. waaw tey nag ñoo ngi am benn invité bees mooy euh, suñu directeur euh, monsieur Moustapha Ngom monsieur Moustapha Ngom maa ngi lay bàyyi nga présenté wu wax ak sénégalais jërëjëf euh, directeur monsieur Moustapha Ngom maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jox loxo bu baax a baax a baax a baax léegi comme ni ma ko waxee rek tout à seen émission nañ ko waxtaanee saa su nekk rek luy problème mu sénégalais luy actualité la ñuy teg ci kaw taabal bi fas yéene ko waxtaanee. tey nag ñu ñëw ci loo xamante ne ñëpp xam nañ ne euh, étonné na toilu sénégalaise bi yëpp que mooy sorti wu son excellence monsieur président Macky Sall mooy li mu wax ci discours am génnee na ci ñaari points yoo xamante ne def na polémique dans tous les médias du Sénégal presque et que les sénégalais lambda sax ñu koy waxtaanee ci rue yeeg marché yeeg fu ne mooy diminution wu location bi ak euh, diminution wu denrées de première nécessité yi euh, tonton Moustapha noo gisee loolu. Mhm. waaw boo xoolee nag Sénégal di leen gën a sonal sonal sonal sonal wala président yi di leen di gën a sonal wala njiit yi di leen di gën a sonal. Mhm. mooy suivi moo ci am suivi amul suivi booy defee dara foog mu am suivi suivi nag doo doylu ñi nga xam ne nii ñoom rek nga yabal. Mhm. foog nga doyloo tamit population bi jox leen ay numéro yoo xam ne wala nga jox leen foo xam ne nii tey. parce que war na mën a nekk. comme Sénégal tey nii mu doxee di lëj mhm. mais war na mën a nekk xam nga côté bu nekk nga samp fa ay services d'hygiène yoo xam ne dañuy dimbali sax waa waa comme ñi nga xam dañuy dox ci wàllu wàllu wàllu saytu wàllu njaay yi mhm. xam nga ak euh, yeneen yeneen yi mën nga si sax impliqué dugal ci police bi ak euh, kii bi gendarmerie gendarmerie pour loolu au moins ni nga koy véhiculer tamit mu jaaree yoon comme ni ni ni ñu koy kiiwee ni ñu koy bëgg Mm-hmm. waaw man moom loolu laa ci gis. waa boo ne suivi loolu nekk na lu am importance parce que même pas premier mandat son excellence gis nañ ni que ba mu juste au pouvoir en 2012 indi na fi kaaw diminution location yi mais par la suite même pas un an gis nañ bailleur yi mel ni ñu mer daal mel ni affaire bi da leen a gën a metti sont obligés gën a yokkaat euh, location bi tey jii ni double la sax par rapport ak 2012 tey liñ gis. ñiy yokk luyaas mhm. dañ lay bàyyi yow ba nga ñëw wax leen ne nii laa bëggee ñu bàyyi ba ba nga dem ñu ñëwaat ne la génnal kër gi mhm. xam nga yàgg man ci gis naa ay kër yu bari yoo xam ne nii bi président bi waxee na nañ wàññi mhm. ñoom li ñu fajee li ñu fajee mer boobu mooy dañoo génne location ñu ñi woon yëpp lañ génne xaw a nice niceal kër gi ba pare yokkaat yokkaat yokkaat yokkaat kii bi luye bi xam nga loolu euh, tey day wane ne rek euh, li nga xam ne ni yërmande ak loi bi fi war a am tey ba ñëpp mën a yërëmante loolu euh, maanaam dafa des ci dafa dafa dafa des ci dëkk bi. Mhm. boo xoolee loolu te am na ay côté yu bari euh, yoo xam ne daf leen a laal tey leen na xool boo xoolee tabaski. Mhm. lan ngay gis yokkute te pourtant jamono boobu la war a wàññi. Mhm. voyage yi lan ngay gis euh, comme ab ab événement xew lan ngay gis yokku léegi nag mhm. affaire yëpp nag ñoom noonu lañ ko jàppee maanaam daal lépp lu nu lu ñu lu ñu teg loo xam ne tey nit war na see am yërmande nit day fexe lu ko changé ba ñàkk ci yërmande loolu nag moom moo am ci dëkk bi nit day fekkee lu ko changé ba du ci am yërmande macha allah gis nañ ko comme ni nga ko waxee rek bu événement jotee boo demee marché pour nga dugg sax problème la boo demee ci boutique yi mu rawati sénégalais du souffrir mu metti lool metti trop waaw son excellence monsieur le président Macky Sall génne nag def discours wax ci luy wàññi buñ ne location ne dund bi tamit ne nañu wàññi dund yi mu ciy insister pendant des mois sénégalais yi ngi ciy souffrir ñu ciy wax def nañ cri de partout mais est-ce que wàññi dund bi tey dina nekk loo xam ne dina yomb fenn rek la doom yomb bi mhm. mu jël lenn marché bu si nekk mhm. mu jël mairie bi fa nekk mhm. mairie bi tamit nekk mairie bu nangoo liggéey wala mairie bi jéem a collaborer ak président bi nga xam ne marché bu nekk dina fa tijji benn magasin boo xam ne nii lépp luy dund day régulariser comme ni ko président waxee xam nga nit ñi moom boo leen fii bàyyi di jëndee fi gën a yomb ñoom ñëpp dinañ jéem a tolloo ki kay ki kay def parce que dañuy xam ne buñ ko deful euh, tamit ñoom du ñu jaarle solution bob tamit solution la ci. solution bob solution la ci parce que tey jii monsieur le président mënul euh, am teg bët. Euh, territoire national bi yep tay lu nane mairie ñëpp xam nañ ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo dans les locaux pour pour permettre bon fonctionnement euh, deuk beeg et tout légui maire yoy non quel est le rôle exactement

nga ñëw présenter leen loolu yëpp. Mhm. lii man loolu laa ñëw ko faj si ko. Mhm. wootal leen ma ndax mu mën ko faj. Mhm. xam nga. loolu nag mais tey bu ñu ko tegee si sa loxo. est-ce que loolu war naa yéex si faj warul yéex. war nga mën a ñëw euh, xool fi nga xam ne ni moom moo ëpp importance ci dëkk bi. Euh, nga koy def xam nga euh, maire yi boo seetee maire yi. dañu am ay quelques idées rek. te mhm. boo xoolee idée yooyu ñu am maanaam dañ ko waroon sax di yokk mhm. gis nga dëkk bu si nekk yi bi fa nekk la mu amul mhm. yenn saa yi man yenn saa ma dem ay dëkk nga xool dëkk bi lëmb lëmb du am boulangerie du am boulangerie pour ñu am mburu te te maire daf fay nekk pour ñu am mburu foog beneen dëkk indi leen mburu mais maire bi war na mën moom fexe ba dëkkam bi amul boulangerie moom mu def fa boulangerie tàggat ay nit yoo xam ne da leen dañuy liggéey ci ci maire bi wala mu jël leen pour maire bi ñu gérer ko boulangerie bi xaalis bi di mhm. ci ci boulangerie bi parce que loolu war na mën a ne. Mhm. maire yi war na mën euh, ay euh, lu mel ni ay gan di magasin yoo xam ne ni tey bu dee yow boo soxlaa foog nga dem beneen dëkk parce que sa dëkk développé wul te yow doon nga maire. Mhm. yow euh, sa ñi nga jaboote nii ku soxla foog mu dem beneen dëkk. jënd fa li mu soxla yépp door ko indiwaat ci dëkk bi mais pourquoi pas maire bi warul mën a xalaat ne ah man de sama dëkk bi war na mën a war naa fi mën a créer da tàggat fi benn ngantam magasin boo xam ne ne lépp lu nit soxla day am fii gars yi nitu maire bi gérer ko luy lu muy gañe muy duggaat ci maire bi maanaam ñoom du ñu élargir euh, seen xel ci dëkk bi nit boo nekkee ci dëkk da nga war a xool dëkk bi lan la la lan la manqué yow mair danga war a góorgóorlu def loolu ci dëkk bi nit ñi di gis ci yow yaakaar xam nga li gën a ndaw li gën a ndaw ci man li gën a ndaw rek boo seetee ñoom duñ ko def. Mhm. mooy tey bu ñu wëree si nit ñëpp ne leen woteel leen. Mhm. xam nga nit ñëpp dugg nañu ruquru xaar bu nekk ne ne la woteel ma. Mhm. ce que bu ñu leen wootelee ba pare est-ce que di nga gisaat ñu duggaat ci ci ci ci leen ñu ngi leen di jaajëfal. <laughs> doo ko gis de. Euh, duñ ko def du ñu duggaat ne leen ah vraiment ñu ngi leen di jaajëfal. léegi nag fi ngeen di xaar moom mooy liggéey te incha allah niñ leen ko waxee woon ah lépp lu nga xam ne suñu budget toll na noonu. Mhm. nañ am taxawaayu def fu suñu budget tolluwul tamit ñu xamal leen ne ah ñun de suñu budget fii la yem. Mhm. bu ko defee euh, ñu mën a déggoo ci kàddu mais da ngay xool ne même marché yi ngay jege. Mhm. tey xoolal marché marché ñaata lay génn par jour wala par weer wala lu muy génne wala at bi yëpp. Mhm. xam nga mais pour pourquoi pas marché bu nekk la muy génn mënu ko defaraat marché bu nekk li muy génn war na mën a defaraat marché bi mais tey taxawaay boobu amul si chaque jour boo demee ci benn marché ni mu salte woon noonu ngay gis muy salté xam nga am na nag yu ñuy defar. Mhm. mais am na yoo xam ne ni mu salté woon ngay gis mu salté mais nit ñi ñoom ñoo war maanaam ñi ñoom ñi ñuy jiital ñoom maire yi. Mhm. ñoo war di xool. xam nga. gis nga si ay UPG yi ñuy jël nii di leen baleeloo mhm. mais pourquoi pas mu ñuy mënuñu leen tàggat si lu bari mais yow da nga leen tàggat si lan ci bale mhm. ah loolu rek nga leen tàggat mhm. mais waroon nga ñëw comme lu mel ni fii nii mën nga ñëw si yenn dëkk yoo xam ne leer na la ne fii mën na def ay tool mën na def tool léegi nga nga xàll fa tool yu tool yu ngand mais nga jël ñenn ñuy ñu nekk ay UPG mais teewul ñuy bay nga jàngal ni ñuy bayee léegi nag ñooñu lépp lu nga bay nañ ko mais mën na duggaat ci dëkk ji mm-hmm. xam nga mu am ay magasin yoo xam ne mairie bi moo ko tàggat yoo xam ne dafay mel ni genre supermarché boo xam ne nii fruits yooyu ngay jëlee foofu ñoom ñoo koy jaar mu nekk nag loo xam dañ ciy liggéey ak président mu nekk lu yomb mm-hmm. xam nga loolu day day day euh, maanaam day dañuy gis na yow euh, yaa ngi doxal dëkk bi mais nag ñoom seen xalaat dafa nekk ci maanaam euh, ci bale la Ah, lusi apa? ak tabaski jot ga may ki eh, dumo ki xar wala nga may nit ki ay soble korité wala nga xol ki té du matalé mhm. boy def nga def nak lu ñepp gis mhm. bo gis nga def li nga xamné say nit ko gis li say nit gis nak jappal né fepp ko dugat ci gox bi lo ko won day tégué ko parce la nga joxé say nit ko gis mhm. gis ñu tey nit a ko gis nit ñi gisuñu ko macha allah ñoom tey bu ñu waree génn wax ak population bi pour campagne gis nañ ni dañuy dugg ci ruq-ruqaan yi comme ni nga ko waxee woon sànq présenter ay programme yoo xamante ne képp ku ko xool ne ah, kon de suñu gox dina mais une fois au pouvoir nañ que ni ñoom duñu matérialiser seen i programme doon na loo xamante ne difficulté sénégalais yi la comme ni ma la ko waxee rek ba ñu delluwaatee ba tey su suñu débat mooy discours euh, monsieur le président wàññi teewu daaxe alimentaire yi am ci point bu important bu ñu ci laal mooy rôle maire yi rôle mooy que ñoom ñoo nekk ci localité yi lu bëri ñu koy gis parce que tey bu ñu ne daare alimentaire dinañ na ñu ne daare alimentaire dinañ na boutique pourquoi pas ñoom ñii ñu jàpp ci bu baax bu mu nekk ay euh, débat débat politique wala xeex politiquement parce que tey jii nii ma je me am na dëkk yoo xamante ne tey ay euh, opposition ñoo fa nekk est-ce que du looloo waral tamit laaj ci teew yenn dëkk yi. Eh, xeexu opposition waru ko yor xam nga xeexu bëgg dëkk bi moo ko war a yor yow da ngay bëgg dëkk bi xeex ko mu dox. <laughs> xam nga tey yow tey bu dee yow da ngay opposé si si si si si si si ne nit fi mu nekk moo tax may xëccoog moom yow day wane ne yow xeexaloo sa dëkk mais nit kuy xeexal sa dëkk yow dootoo xool sax ak opposition li ngay xool si opposition bi xam nga mooy lan. Mm-hmm. mooy tey mu ñëw wax la lu am njariñ ci dëkk bi nga roy si loolu bul xool ne. Mm-hmm. moom moo ko wax mais yow xoolal baax na si dëkk bi nga xam nga loolu day tax nit ñi dal la ci naw mais fii boo seetee li leen di gën a lor mooy seen ki ñuy ki ñuy xëccool mhm. bu waxee lu am important du ñu roy loolu dañuy xalaat seen xalaatu bopp mhm. te moom moom mi nga xam ne yow mooy xeex ak yow Mm-hmm. mais li muy gis ci dëkk bi. Mm-hmm. yow jéemal nga roy loolu. Mm-hmm. loolu loolu parce que tey euh, peut-être ñi la jege. am na si loo xam ne mën nañ la ko bañ a bañ a bañ a a bañ a informer mais ki nga xam ne nii da lay xeex da lay informer. bien sûr informer bu ko jàppee noonu mais jàppee ko conseil nga doxal. Mm-hmm. man loolu jàppee ko conseil nga baxal ko jàppee ko atu pour dëkk bi bu na gën a naat macha allah comme ni nga ko waxee rek ba tey euh, ci wàññiteewu daaxe alimentaire yi gis nañ ni que même jamono yee passé euh, ministre

lan moo doon tax euh, commerçant yi di ko defee ñoom nguur gi ni mu leen koy waxee parce que dafa amoon ay ñoo xam ne dañuy def contrôle économique. Mm-hmm. di contrôler di dugg ci bitig yi di xool bitig yi. Mm-hmm. Euh, di bitig bu yokk ñu ñu ñu ñu ñu amaan la wala ñu teg la loo xam ne dootoo yokk mais xam nga fii Sénégal. Mm-hmm. problème bi fii gën a doy waar mooy gaar xaw ma guerre la ñuy wax xaw ma. voilà. légui tay yow bo ñëwé né len ah yow li da nga yok indil len ci problème mhm. bu dé yow nekko ki nga xamné da ngay xéxal sa dëkk mhm. pour euh, li fi nekk mu xaw mu wañé ko ci ñëw mhm. yow da ngay da nga xéxal sa poste moy gën mu mo fi da ngay xéxal sa poste ñu jox la dara nga dem nopi parce yow sa kër jagg euh est ce que non la waaye ba tey rek euh, soo ne commerçant yi tey boo duggee ci benn boutique euh, wala benn marché di laaj ci benn produit mu ne la lii lay jaar nga ne ko la nga koy jaay ni nga koy jaayee dafa cher trop danaan lii laa ko jëndee lii la ma dikkee man la ma ca yokk aw ci dara sax est ce que nekkul tamit euh, lu prix yi tamit si kaw la jugee tamit si import export ba. loolu parfois dina am. Mhm. parfois dina am mais nag boo seetee commerçant yi li leen nit ñi di waxal. Mhm. tey boo seetee boo xoolee ñoom saa yoo yokkee ñoom arrangé na leen. Mhm. dañuy yokk. mais boo wàññee arrangé wu te arrangé <laughs> mm-hmm. moom dañ après moom foog ñu nekk fa dina wax naan la ne ni ma ko jëndee woon la mais comme yow yaa ngi yaa ngi yaa dugg ci commerce mm-hmm. xam nga fii war na mën a am ne képp ku nga xam ne dangay dugg ci commerce war na am ay kii yoo xam ne dañ lay wax sartu commerce mm-hmm. expliqué na la commerce nag nii lay demee ba yow miy dugg ci commerce nga xam ne affaire bi day yéeg bu yéegee day neex si yow mais bu buñ ko wàññee tamit xamal na tamit dafay wàññi nga nga ñu expliqué la lépp ba nga xam ne lii kat nii lay doxee mhm. mais boo xoolee ñi fi nekk yëpp ñu si bari xamuñu charte commerce yenn saa yi da ngay dem fii mu jaayee la lu seer yan kii mu jaayee la lu moyen seer loolu moom moo nekk ci dëkk parce que xamuñu charte commerce xam nga ñoom nu ñu mën a jariñoo ba avancé rek euh, lor doomu aadama yi si seen kaw loolu loolu la commerçant yu bari noonu la ñuy def parce que ñun dañuy dugg si ay bitik mhm. laajte meew bi ñu ne la temps nga laajte war ko fu la ñu yokk ci mhm. ñu yokk ci tuuti xam nga mhm. bu doom nag euh, xam kooku xam na sartu commerce euh, loolu loolu du mhm. charte commerce damay dëggal li nga wax rek comme ni ko sama yaay di waxee chaque jour rek boo demee marché boo laajtee kii mu ne la li lay jar bu lay bu yeboo nga wër marché bi yëpp ba daj ko di nga gis koo xamante dina ko jaayee lu gën a mooy kee lam ko waxee ñoom ku ci nekk dañuy def lu la neex moom chaque jour rek loolu lay wax kër ga macha allah ba tey rek euh, ci euh, euh, nu mu tudd diminution wu denrées alimentaires yi tey gis nañ que nii am nañ assemblée bu bees mooy quatorzième législature bi lan moo war a nekk député pour population bi gëna mëna mën a bop ci 14e législature bi. xam nga euh, député boo sété dañuy wax né mom li kan li naqari askan bi mom la ko wara joya mhm. xam nga. Mhm. euh yalla def député bu nek amna fo foo juddoo. Mhm. te fi nga juddoo. bu dee yaa ngi fa continuer di juddoo xam nga réalité yi nekk foofu mhm. xam nga mhm. lépp lu nekk foofu tey mhm. yow yaa ko war a jooy pour dëkk boobu mën a sentir seen bopp ci yow xam nga mais fii euh, ñun li ñuy gën a remarqué mooy maanaam euh, député yi problème bi ñuy am moom mooy problème boo xam ne ni comme information yi nga xam ne day xaw xew ci dëkk bi loolu dañ ko loolu duñ ko am loolu nag lu tax duñ ko am parce que tey tànk yow boo amee ndombal tànk rek nga am benn daraja boo xam ne fi nga war a xamee dara dootoo fa dugg ndax mm-hmm. jombale sa bopp foofu mm-hmm. yow mënoo am dara loo présenté euh, ci ci ci ci kii bi ci ci ensemble bi mm-hmm. parce que nit euh, da ko war a jàppee père de famille rek père de famille wala nga jiite famille danga war a nemmeeku sa famille yëpp fu fii metti nga xam ne fii day metti mhm. problème bu am ci say famille mhm. nga xam ne non problème bii moom moom moo am mhm. xam nga mais tey loolu ah feeñagul carrément ci député yi te dëkk boo ci dem rek am na lu ñu koy jàmbatal ci ay député yi fi nekkoon ak yi fi nekk te noonu rek lay kiyee te jàmbat boobu di fay waaw léegi nag loolu lan moo ko war mooy parce que ka fa nekk amul taxawaayu jàmbat loolu wane wane ne lii da ko war a def pour nit ñi def loolu loolu problème la ci député yi. comme ni ko sénégalais lambda yi di waxee rek problème rek la ci député yi que sénégalais lambda yi léegi ñu ngi leen di réprimander que ñoom fajaluñu seen so fajaluñu leen seen soxla mais dañoo nekk assemblée pour xeex pour xeex est-ce que xeex boobu noonu warul woon nekk bataille des idées. waaw xam nga xam nga xam nga loolu bu nekkoon bataille moo doon gën. maanaam tey booy xeex nga xeexee. Euh, maanaam nga xeexee euh, li nga xam ne mooy xew sa dëkk yow mhm. te baaxul mhm. nga xeexee ñàkk bi mhm. xeexee xeexee ne non dëkk bi amul tali xeexee ne non côté bii sama dëkk côté bii ba fële boo seetee amul amul euh, amul amul amul ay oto yoo xam ne mën na yóbbu nit ñi maanaam déplacement bi day metti nga xee nga am xeex boobu ba nga xam ne nit ñi nga gis avancement mais boo xoolee nag léegi nag liñ doon wax loolu amu ci. Mhm. parce que yow sa parti ngay xeexal. Mhm. léegi yow kala fa xeexalatoo ko léegi yow sa parti la ngay xeexal moo tax ñu si bari nii gis nga problème yi ñu amee yëpp moom mooy problème mu parti. Mhm. léegi nga jaboote ñëpp mais tey même da ngay gis ne tey buñ la waxoon ne la demal nga dimbali sa dëkk. yow ngay dimbali say nit. léegi nag ki la waxoon ne demal dimbali si dëkk moom bu ñëwee si dëkk bi lan lañ koy def duñ ko ñaawal. kay li nga fi waxoon dara amul. te moom. bu xalaatee ne def na li mu war a def te yeggul fi mu war a yegg. Mhm. nga loolu problème la. waa loolu problème la comme ni nga ko waxee rek ñoom seeni parti la ñuy xeexal buñ ñu demee ba yegg bi assemblée nationale maanaam ku ci nekk sa njiitu parti fu mu la ne nga xool rek foofu rek ngay xool sañoo xool fu la population bi wax sañoo indi càmbaaru population bi foofu. ba tey bu demee ci député yi rek quatorzième législature bi gis nañ ni bëri na polémique yu bëri même jour ba ñuy installé bureau à l' assemblée nationale la est ce que loolu tamit doo am impact ci société bi tamit. xëccoo la xam nga xëccoo moom. dafa am foo xam ne ni ba léegi euh, daf fay daf fay feeñ. Mhm. parce que boo xoolee benn côté bi affaire parti la. Mhm. xam nga mais yeneen côté bi ñu ngi ko waroon jël affaire population yi. Mhm. xam nga boo réglee li nga xam ne ni leer na la ne tey lii ngay réglé nii euh, moom mooy liy yàq dëkk bi. xam nga loolu baax naa réglé. Mhm. maanaam comme fii ni ñuy def rek tey bu ñu lay dimbale il faut nga nekk parti sàngam ñu mën la jàppale boo nekkul parti sàngam doo mën a am yenn privilège xam nga loolu doxul mhm. léegi nag yooyu tam jar na mhm. lépp nekk or tey tamit loo kaas-kaas loolu tamit na nga taxawee tam taxawaayu askan bi ba ñu xam ne tey yow askan bi tey dina gis si yow tey ci lim la li nga xam ne ni moom la xalaat ne lii dañ ko ko taxawee foofu nga am taxawaay looy kaas kaas askan bi danga fa taxawee taxaw boo xamante ne askan bi dinañ xam ne taxawu ngeen leen macha allah bu ñu ñëwee ba tey ci discours son excellence monsieur Macky Sall euh, discours bi lu mu tënk mooy ñaar yoo xamante ne moom la ci sénégalais yi gën a jàpp mu doon lu leen sonal trop mais malgré que mu doon lu leen sonal trop am na ñu si gis tamit am am na ñu ciy wax tamit est-ce que nekkul stratégie pour nit ñi fàtte de wu troisième mandat bi. stratégie troisième mandat la mhm. tey boo xoolee yàlla mooy fal nit ñi ñooy voté mhm. tey nit ki même bu jàppee troisième man mandat kan moo koy kan mooy fal du yàlla ak euh, sabab lu doomu aadama yi mhm. moo tax doomu adama yi waruñu jàpp loolu xam nga lu leen war a soxal mooy est que dina wàññeeku wala du wàññeeku loolu moo leen war a soxal te lu ñu mën a def ba mu wàññeeku tamit si loolu la ñu war a taxaw mu wàññeeku lu ñu koy soññu tamit parce tey boo xoolee tey li muy kaas Mm-hmm. tey wala mu taxaw di ko wax ne ne ne ministre yi lañ ci taxaw mm-hmm. boo xoolee tey bu awee yoon ñun ñëpp kenn ku si nekk suñu intérêt mm-hmm. xam nga mais parfois euh, nit du jël rek ne non nit bu waxee lii rek lii moom moo tax bu boobaa yow euh, dootoo est-ce que deeti nga ko mën a soññ moom si li mu war a def mu def bu boobaa yow sa xel si troisième man te nit ñi dañu ta tey li ñu war a li ñu war a soññee président bi si jamono bi mm-hmm. te boo xoolee si jamono bi mu fi toogee. Mm-hmm. Euh, wala bi mu fi toog nii mu des ci moom. Mm-hmm. loolu nit ñi dañ ko war a soññ ci dund gu wàññeeku. te comme mu ngi ci taxaw na am suivi. xam nga ba nga xam ne nii ñëpp dinañ ci yëg seen bopp. lokat loca location yi tamit. na am suivi ba ñëpp xam ne tamit location yi tamit ñu ngi ciy gis seen bopp. loolu daal gis nga bu amee. Ah. li si des troisième mandat mën na mën na bañ a métti parce que troisième mandat. Mhm. yàlla yàlla moo koy fal ak doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñooy voté. Mhm. waaw te mhm. ku leen fi neexul mu ànd ak dogalu yàlla dafay jóge. waaw fi neexul mu ànd ak yàlla dafay jóge macha allah euh, tout à l'heure dama dégg ci sa biir wax mu ne soññ na ci ay ministre am. Mm. ñëpp gis nañ ni que dañoo am gouvernement bu bees am premier ministre boo xam ne presque je peux dire que deux ans xam trois ans derrière Sénégal euh, euh, présence du premier ministre amu fi woon na tey jii euh, retour premier ministre ban ban apport la am ci biir gouvernement Sénégal. waaw xam nga premier ministre moom. Mhm. lenn rek la war a mën a def. Mhm. ministre bu nekk. Mhm. comme ñoom ci jamono bii. Mhm. li ñu bëggal rek la yëpp di ko dox ministre boo ci xool rek la mu war a dox am na lu ci manqué mhm. léegi nag moom suivi boobu la war a def mhm. kenn ku si nekk ministre bu mu bu mu jël li ngay doxal naka suivre xool bu la joxoon weer na lii dafa bëgg mu sotti ndax xool ndax weer boobu ndax loolu dina sotti bu ko sottiwul ñu bu mënul sotti ci yow ñoo xam ne compétent ñu wàcce la xam nga affaire bi maanaam foog mu am loo xam ne dañuy dangay ngay suivre nit ki ndax compétent la mhm. ci li nga koy jox mais tey bu dee euh, bu dee doo ko suivre mhm. tey mën naa ne lu bari lu ñu lu lu lu sonale la lan lu ko waral mhm. da ngay jox nit lenn te doo ko suivre léegi nag bu boobaa moom bu jëlee li nga ko jox jox ko keneen du suivre moom it kam ko jox kam ko jox tamit jox ko keneen kooku du suivre kam ko jox lan nga lan lay jur ay dégâts rek ay dégâts lay jur ak mécontentement. Mhm. Ah, milliards yooyu tey boo ko doom laaj fu mu aw fan nga ñàkk suivi la. Mhm. tey tey xoolal leen. Mhm. ba ci leen. xoolal tey euh, moom bi muy maanaam Macky bi muy door a ñëw fii nii euh, di falu. imaginal leen bu seetoon Sénégal ñi sàcc milliards yëpp mu ne du ma ko ne gars yi sàcc milliards yëpp. léegi leen laay def. Mhm. kenn ku si nekk milliards yi nga sàcc. Mhm. ba nga dëkk. Mhm. da nga fay tijji société te force jël si ay nit force wala ma nangu. <laughs> xam nga loolu day wàññi semence. trop sax xam nga. ay système xeex la yoo xam ne ni euh, da defar euh, da defar dëkk. mais xam nga euh, yërmandante bi. xam nga ak yàgg wala nit ki dugg si yow nga nga nga nga yërëm ko loolu yëpp doxalul woon mbir yi. tey mën naa ne lu faay lu <laughs> yëpp da ko indi macha allah débat bi intéressant na te neex na lool ah tonton Moustapha maa ngi lay sant di la gërëm bu baax di la wax nga wax sa dernier moom macha allah. Mm-hmm. bu ko defee koo yónni tamit bul toog fa nga toog rek ne da nga kaa yónni yow it amal amal amal nana jaral nga jóg seet ndax yow li nga ko yónni ne parce que mu ngi koy matali mm-hmm. nga na la ko jaral mm-hmm. léegi nag boo ko defee def say photo mais bu ñëwee mën nga ñëwaat ne ko mais fi ma fi ma la yebaloon ak la ma la fa def loo mais fii laa gis mu toll mooy lu waral lool xam nga amee CV rek day gën a baax tey man dama ne Macky Sall ci jamono bii ah?

waaye ñoo ngi lay jaajëf jaajëfal bu baax président di la nuyu bu baax di la di la di la sant di la gërëm si invitation bi nga wuy si nii débat bi nekk lu am solo macha allah comme ni nga ko waxee rek na liggéey yëpp am suivi comme ça population mën a gis seen bopp la ñu wax nañ ko dëggal tamit bu baax a baax a baax ndax dund bi metti na lool ñëpp ngi koy sentir kër yeeg boutique yeeg marché yeeg fépp ñëpp a ngi koy jooytu gars yi lancé nañ cri de cœur et président dégg na ko ba def ci discours et j' bien que bi pas dinañ ko matérialiser bu baax a baax a baax a baax maa ngi lay sant di la gërëm di sant internautes yëpp di leen wax ni seen émission nañ ko waxtaanee nii rek lay demee saa su ne di leen bégloo di leen wax ñoo ngi leen di invité ci beneen numéro émission nañ ko waxtaanee waa tey nag euh, di di souhaiter joyeux anniversaire sama doom Euh, sama taaw macha allah nga xam ne ba mu juddoo ba tey bonheur rek la indi sama vie pendita sama doomu bopp Rama Safa di la ñaan ngeen ñaanal ko bu baax a baax gudd fan wérgu yaram tey muy féete 3 ans wam te sama doomu sœur macha allah pendita aatee 100 ans longue vie macha allah. Mhm, amin amin amin amin amin amin amin amin amiin di sant waa Kifne TV yëpp sama caméraman Diop Fall maa ngi lay sant Chérif sama xarit